Votre bulletin d'information communale, BIC. internet ñu daal di dikkaat ak yéen ci récap du soir bi li ci gën fës nag bokk ci information bi nga xam ni waa Dakar Post ñoom ñoo ko xamle euh, di fësal rek ni doom ci Ahmed Amar euh, ñu gën ko xam ci Baydi Amar a euh, daf ko daal teg loxo ginnaaw bi nga xamante ni jàpp nañ fan yi ñu génn son frère Dame Amar ci jéey joo xamante ni dafa xew woon fële na le ca Almadi ñu organiser fa woon rek ab soirée privée ba ab xale bu jigéen daal di fay ñàkk jëfandikoo li nga xamante ni moom moo di euh, drogue euh, ak alcool euh, ca biir appartement boobu noonu ba ab xale bu jigéen daal di fay jaaree ñàkk bakkanam ñu daal di ubbi enquête bi nag xam ne ñoom seen loxo setul ca jiyee jooju nga xamante ni amoon na fa ndax kenn ku ci ñoom rek teewoon nga fa Dame Amar ak ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon ca soirée privée boobu noonu ba ab xale bu jigéen daal di ci ñàkk bakkanam yoon daal di tranché nag daal di leen di rek déféré waa section de recherche bi nga xamante ni ñoom ñoo nekkee fële na le ca Colobane ñoom nag ñoo yore woon dossier bi képp koo xamante ni rek sa tur nañ ko ca biir appartement boobu rek yoon daati na lay mujjee teg loxo ba làq leen jant bi ñu defeere leen mu mel ni rek balaa ñuy jeexal loolu ci lañ gisewaat information bi ki nga xamante ni moom moo di Baydi Amar di frère ci Dame Amar moomu di doom feu Ahmed Amar bi nga xamante ni moom moom moom NMA moom nag la ñu daati tegaat loxo démb daati nañ koy defeere tey jii li ko waral nag du leen lu dul dafa yoroon ab otoom eh, di dawal ab xale bu jigéen daal di nekk ci kanam waaye bi nu ñëwee ci ab intersection ginnaaw bi nga xamante ni ñëpp xam nañ ni Sénégal vingt heures la dox bi arrêté ak li nga xamante ni moom moo di dawal bi ndax état d'urgence bi ñu décrété ak bi vingt heures ba six heures du matin moom nag ci lañ ko daal di gisee ci ab intersection dakaroise mu yore ab otoom ñu daal di koy arrêté mu daal di bañ rek daal di foncé ci li nga xamante ñoom ñoo di takk der yi tegoon foofu noonu ab barrière daal di seen kaw waaye ñoom nag dañu daal di relever rek li nga xamante ni moom moo di plaque matriculation bi fexe Touba identifier ko à la vitesse daal di koy teg loxo rek bi ñu ko tegee loxo nag jàpp nañ ko moom ba daal di koy déféré mu mel ni rek commissariat de jëppal bi ci boppam ñoom ñoo découvrir sax en même temps que ni biir oto bi dafa amoon li nga xamante ni moom moo di sàngara su bari ndax ki nga xamante ni moom moo di bay di amaar dafa naanoon bay lang bi muy dawal oto boobu noonu excès de vitesse ñëw ba ci ñoom daal di foncé ñu daal ci ubbi oto bi fekk fa sàngara ju takku ci biir oto bi.